di masaw waa Touba di ñaan yàlla suñu borom may leen xolum muñ ndax lii métti na waay boo xamante foo ko takk weesu ko ndax d'ailleurs euh, mu taw rek ay kër génn loolu rek doy na naqar bu dee nag ci loolu day day doon ñaari naqar mais dañ leen di masaw encore di wax gouvernement bi nañ gën a jël seen responsabilité ci Touba ndax Touba ni ma ko doon waxee yaramu mag la foo laal day métti tey bu nawet bi jeexoon askan Touba li nga gën a dégg ñu koy jàmbat mooy problème ndox muñ naan bu nawet bi ñëwee nga dégg ñu ne problème assainissement kon programme boobu gouvernement bi lancé ci conseil des ministres jàll muy programme spécial pour loolu mënatul xaar ndax tey nii ñu koy dundee ci Kër Ñang parce que quartier yu bëree bëree bëri noonu lañ koy dundee ci Touba mais wax rek xel yëpp ci Kër Ñang lay dem ndax bassin bi fi nekk te gis ngeen askan wi li ñuy dund tey jii quatre-vingt-dix ci kër yi ku ci mënta génn di da nga amul moyen génn mais boo ko amul da génn kon daal ñu ngi maskawu askan wi surtout nag ñi nga xamante ni ñoo fi ñàkk seen bakkan ndax li ma mën a def rek mooy masawu leen wax nag ñu gën a muñal gouvernement bi ndax lii bu fekkoonte ni gouvernement yi fi jiitu li ñu waroon def def nañ ko ñun duñ fekk lu mel nii ndax ñun quatre mois lañ fekk ko kon li nga xamante ni gouvernement bi amel nañu ko li ci jiitu mooy xaalis bi ñu dugal nañ ko Touba nañ ñu leeralal xaalis bu fan la dugg ndax 40 milliards du milliards bu ñu ko dugalee ci assainissement Touba tey ji deli yi fi am ñu du fi am

dañ fa ñëw ngir kenn ku bokk ci ñoom comme ni ma koy waxee ndax lii leen dal ñun ñëpp dal nañu dalatañu ndax moo tax tey ji génn suñu kër yooyu dem tuxu ay nindi ñoom ñi ku ci amoon ay moyens doo nekk fii da ngay dem tuxu ji waat kon ñu ngi leen masso encore une fois ndax kenn lañ euh, nga xam ne mooy kër gi nga xam ne na liggéey bi rawatina ci wàllu techniquement daal tabax waaw loolu moom Thierno ñun ñëpp ñoo ko gisandoo mais loolu jàpp naa yeneen waxtaan la mais fi doon li jàmp nga xam ne moo daar daar mooy nit mun dëkkakum ndox nit ñi liñ gën a soxla ku leen ci dimbale bala nga naan tabaxee leen nangam tabaxee leen nangam mooy nga fexe ba seen dëkkuwaay ñoŋ mooy état bi accompagner leen te programme bii xew tey jii président de la république yëg ko premier ministre yëg na ko léegi nii bi ma taxaw fi maa ngi jokkoo ak ministre de l' intérieur déployé nañ ay ay sapeur yu doy pour ñu ñëw sauver askan wi ndax programme bi sauvetage dong la mën a loolu programme spécial la mën a nekk programme spécial boo xam ne du diire benn at du diire ñaari at chaque année ak lañ ca war a def mu nekk liggéey bu sérieux xaalis boobu ñu teg ko ci loxo nit ñu jub ñu liggéey Touba ndax problème problème yi nga fi dégg yëpp nit ñu jubal rek loo xam ne bu ñu ko rek defoon lii dëgg te dëgg mooy dund askan wi ndax daaw ci heure bi kër yu bëree bëri fi ONAS jënd na ko te biñ ko jëndee ba léegi gisoo benn réalisation buñ ko kër yooyu bu fekkoon bi ko jëndee lañ ci waroon def def nañ ko heure bii nii quartier bi di kër nag lii muy dund du ko dund kon tey boo gisee ñu naan sensé nañ DG ONAS bi tegaat nañ fekkee mooy wane état bi këfatul ci li fi nekkoon dekkat képp kuñ jox alal askan wi nga di ko sansaxee yoon sa kaw